talaata ji ay waxtu ginnaaw collectif bi ëmb étudiants yi doon amal ak ndaje ak taskatu xibaar yi mujjee jur ay xëccoo ci digganteeg étudiants yi ak ña yor wàllum kaaraange gi. njiitu collectif bi ëmb étudiants yu nekk ci université ba di ñaaw xët ñu jot a njëkk rek di li nga xamante ne ni am na ci université Cheikh Anta bu Dakar. à chaque instant bu amee ay procès politique am na ñoo xamante ni dugg nañ ci biir université rax étudiants yi def ci li nga xamante ni loolu lañ fi yàq lii waroon na nekk loo xamante ni aussi waruñ mën a eggi fii nii quel soit aussi appartenance politique. ginnaaw ba yoon tegee loxo ñett ci seen ay mbokk étudiants la ñu leen toppee rek mooy dañoo bokk ci ñi doon taal ak yàq université bi ba naka noonee ñu ni sax duñu ay étudiants ñoom ñi jiite collectif bi nag ginnaaw ba ñu weddee lu ni Diatta la INSEPS la inscrire Dabo euh, faculté fac médecine la nekk Yaya Bodian FJP donc ñoom ñoo fa des te ñu leen di wax lu nekk c' des étudiants yoo xamante ne c' est des étudiants régulièrement inscrits ñu bokk ci ñun lañ je pense que ne les vrais coupables ba léegi jàppaguñ leen mais ñii nii ak liñ leen di tuumal du ñoom c' des étudiants ñun xam nañ leen ay étudiants lañ suñ ay xarit lañ ci seen kàddu nag ñoom nanguwuñu benn yoon cours ya ñu nar a tàmbali en ligne à chaque instant décision yi buñ koy jël duñu impliqué lu ñuy duñ ñu nangu aussi à ce que tey quelles que soient les ñu ne ñu ñoom dañuy def reprise en ligne bi fépp amul couverture réseau étudiants yëpp amandoo wuñ connexion te mënul jàll beneen bi ñu xam ne carrément dañ koy bañ mooy que ne ñu neñu reprise mois d' octobre mënul nekk ñu doon janook taskatu xibaar yi tey leneen la ñu ñaaw nag bokk na ci ñoon ne ñu leen beddee dafa ñuy amee waxtaan yu ñeel njàngum étudiants yi yi les étudiants nag yu bokk ci collectif des amicales des étudiants de l' université Cheikh Anta Diop de Dakar taxaw nañu temm ngir xeex rëkk-rëkk ya ñuy jànkonteel ci bile daara bu kewe bi